waaye jigéen dañ ko war a delloo cëram. surtout ñun góor ndax ndax ëmb juróom-ñetti weer euh, dafa metti dëgg la. Euh, benn bés bi xaw laa rey salaam kon tey ñi nga xam ni tey ñooy góor nanu jox cër jigéen. comme li ñuy wax nag sànq ci xale yu ndaw yi. man man nee naa képp kuy def loolu xale. xanaa danga amul doom wala amoo rakk. xanaa da nga amul doom wala amoo rakk. kon yenn yi nan koy xoolaat. Mhm. ndax fi réew mi toll nii tey ku xool tey ku xool tey ci feebar bi war nga ci jàng lu ne. Mhm. waaw kon yërmaande gi na gën a daw. dëgg la waaw yërmaande gi na gën a daw. rafet na beneen bi mooy. tey euh, suñu réew mi yàlla na fi jàmm sax. amiin waay salaam feebar bi yàlla na fi jóge. amiin waay feebar bi yàlla na fi jóge ba. ba képp ku nekk ci li nga newoon rek nga dellu ci. amiin fay mm. yàlla na jàmm yàlla. amiin waay amiin kon asu xanaa nga joxe numéro bi sànq mm. balaa Baye Demba nag. Euh, te ni nga ñëwee nii nag bëgg naa nga bégal ñi nga xamante ne ñooy seetaan parce que problème yi daanaka bari na lool.